waa d'abord euh, dama wax ni suñu tête de liste dans la ville di Yankhoba Diattara il a eu la dignité euh, dans la défaite d'abord euh, yombul parce que c'est la première fois ma gis au Sénégal ñu génn ci élection mu woote ñun ñëpp ñu toog mu def ñetti mbir rek mu féliciter ñi gagné encourager leen remercier ñi nga xamante ni ñooy population Euh, Thiès ba pare appeler à l'unité je pense que déclaration boobu déclaration bu am solo la bu responsable la man nag damay wax ne élection yi da dañ koy buñ koy jàngat ñaar rek la man dama jàpp ni nit ñi dañu def dem ñaari ah, wax ñaari message benn bi dañu wax ni euh, euh, nañ ñu gën a bàyyi xel ci maanaam jumtukaay yi nga xamante ni ñi ngi koy dundee mu nekk lu ñu soxla beneen élément bi nga xamante ni gin nañ ko mooy dine wane nañu nag ni euh, président bëgg nañu xëy na seen diggante ak président am ñeneen ñu fa dox bu dul nga xamante ni ñoom la ñu yabaloon dans une moindre mesure mais li may jàpp daal mooy ànd nañu dans l'unité euh, campagne nañu dans l'unité yàlla indi na li muy indi dañuy defaruwaat gën a wane suñu ancrage dans Benno Bokk Yaakaar def nag une analyse froide de la situation et puis gën a jàppale ni gën leen taxaw euh, rafetalu en tout cas jotaay bi nga xamante ni notre candidat tête de am na ko beneen bi ci des nag mooy euh, li ci kanam am na yeneen échéance dañ ci gën a taxaw mais comme je te dis étude buñ ciy def rek ak jàngat ñu bañ ko def jàngatu yàkkamti wala jàngatu taw responsabilité wala wax ni dara xewul si dara xew na donc loolu ñu ngi ci ah. bàyyi. mais loolu yëpp dañ koy war a jàngal xam nga phénomène bu amee bu demee nii la ma la ko léegi nii la Yankhoba Diattara li mu woote nii au nom de notre coalition la parce que jóge ci ku ñàkk dëkk nga ñàkk ko ñàkk sa bureau ñàkk da nga koy jàngat donc loolu Abdou Mbow waxoon mon frère daf ko wax ci contexte su euh, campagne contexte élection lii contexte résultat la bu génn nañu dal gën ko jàngat apporter des réponses plus précises et plus scientifiques aussi et plus sociologique aussi il faut ñu xam lan moo xew jeunes yi lan la lan moo qu'est-ce qui se passe je pense que loolu yëpp lu ñu war a jàngat la merci